Assane dañ koo fekk muy liggéey ah macha allah di ranger da ngay door a xëy de. waaw may waaw xëy naa nag sànq. mais da ngaa naaje. waaw damaa naaje xam nga rek ak xat-xat bi nii. Mhm. xam naa ni période bi moom daanaka lépp xat. dëgg la xam ngeen loolu sax daanaka. loolu am na période bi moom dara du yomb. mais ñu la fekk ngay jaay ay dàll dàllu jigéen dàllu góor expliquer ñu tuuti marchandise bi. waaw marchandise bi comme ni ngeen ko gisee nii rek. Mhm. daanaka ñun si lii la ñuy yëngu dañ koy boole leneen ak leneen sax. mais suñu borom dogal na daal bu ñu nekkul fële rek ñun ñu ngi fii. leneen ak leneen mooy waaw maanaam man sama métier menuisier la. ah menuisier ngay waaw menuisier bu laay def. mais dama ci boole jënd ak jaay waaw marchandise yi ni mu demee nii ñun ci loolu la ñuy dugg lu ñu for fële rek dañuy ñëw indi ko si lii. Mm-hmm. waaw si lii lañ ko dugal toog xaar yàlla. donc actuellement mu nekk période tabaski bi est-ce que njaay maa ngi dox daal yaa ngi dox. waaw mooy taw fexe fii moom sant rek a fi nekk sant rek. waaw sant rek waaw waaw <laughs> sant rek ñoo ngi sant moom sant rek waaw daanaka naa xam nga réew mi yéen xam ngeen li fi nekk yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka kenn mënu ko wax waaw mais ñoo ngi dundee yaakaar di fi toog di xaar suñu borom di yaakaar sëriñ bi waaw rek waaw comme boo gisee nii am na ay euh, ay vapeur max am na fi am na fi yoo am na fi euh, ay sebago ba si caraxu jigéen yi ak même daalu xale yi dañ ciy yëngu kalaaykatu xale yi waaw bëri na daal loo xamante ni incha allah ku dox ba ñëw fi di mu fekk li nga bëgg waaw parce que ñun loolu daal moo ñu fi teg dox si bëgg-bëgg client yi bu ñëwee ñu dalal leen comme niñ ko defee nii rek dalal leen ak jàmm toog waaw jaay leen mu dem ñun si loolu daal la ñuy yëngu. est-ce que mën nañu xam marchandise bi nii nii fan ngeen koy jëndee fan lay jógee est-ce que cher na est-ce que di ci am bu ngeen jaayee bénéfice bi ngeen ci soxla di ko ci am. waaw comme li ma wax rek maanaam sant daal moo fi nekk marchandise bi ñun dinañ dem ba Dakar. di ko jënd ji beneen saa bu dee carax benn benn di ko fi am. Hmm. mais différence bi du bëri. du bëri beneen di nga xat-xatloo dugg si oto dem Dakar wut fa marchandise waa li si ëpp fa nga koy amee nax yenn ferme yi daanaka Thiès loolu yaatoo fi. ferme yi daanaka biir dakaar la gën a yaatoo yenn secteurs yi Sandaga Centenaire waaw Colobane genre yooyu daal fa la gën a yombee waaw fortaatu gi comme li nga ko waxee nit moom daanaka li ngay génnee li ngay génnee pour bugg am dara waaw boo génnee fukk boo amee ñaar dërëm sax sante ko suñu borom te xam ne loola la yàlla wërsëgee. Uh-huh. taalibe maam Cheikh Fall. waaw ñun moom ay Baye Fall lañu. <laughs> waaw waaw Mamadou kante uh-huh. man sama benn taal bi sax ñoo fi nekk moom daanaka dafa jaaroon benn sarax fii ñu koy wax Assirou waaw moom ñoo fi nekk man ak moom dafa jaaroon benn sarax moo tax mun naa jee ñëw uh-huh. ñun waa kër sëñ Fallou lañ waaw te it sëñ Fallou moom daanaka leneen la mm-hmm. waaw mais mais ak ak bi nii mm-hmm. nu mu lëmbee dëkk bi gars yi naan amuñu xaalis ak yow est-ce client yaa ngi ñëw waaw comme benn benn rek. benn benn benn benn parce que parensaay mun nga xëy sax lal soo ba ngoon jot daanaka du demee noonu. Mhm. waaw di nga ni nga lalee noonu ngay lalee. Mhm. moo tax boo si amul benn courage bi rek. am patience bi tuuti rek. daanaka tem nga xam nga waaw mais sant rek. waaw mais du leen sonal. non actuellement nii nag moom actuellement nii moom euh, waxaguñu dara. waaw waaw nii ni moom policiers yi dañuy ñëw parensaay di saavantoog ñun. Mhm. ba si mairie bi parensaay ñu ñëw saafanteeg ñun fii waaw bàyyi nañu daal waaw wax guñu daal dara waaw waaw bëgg nañ ñett ñu bàyyi ñu ñu liggéey waaw parce que euh, message boobu dama koy jàllale waale waaw comme ni ma ko waxee man ki ma fi nekkal étudiant la am na bac jaar na université kon kooku am na lu mu yore man mii di wax ak yow menuisier yi laa waaw menuisier bois laa def naa si presque 17 ans 2003 ba léegi mu toll nii nii dafa am livraison bu ma bàyyi nii dama ko dem mbokk taalibe bi moom moo fi xaar kon maa ngi métier waaw kon bu ñu ñëwee bàyyi loolu ñëw si lii rek ngir yàlla nañu fi bàyyi waaye waaw nañu bàyyi ñu jox waaw. fàttali ñu fan nga nekk waaw ñoo ngi champ de boo ñëwee ba si rond point soixante bi rek ñoo ngi champ de boo tourné rek rond point mel ni ku jëmi R100 ñun ngay njëkk a jot si wetu kees ku orange money bi waaw ñoo ngi nekk. Euh, ñu ngi lay jaajëfee bu baax. waaw waaw di leen maa ngi lay jaajëfal yéen it yéen it yéen it waa Thiès Info li ngeen def euh, jafe na franchement maa ngi koy waxaat waaw ndax lii dafa jafe waaw lii maanaam bàyyi seen lépp ñëw rek ngir jàppale ñu si événement bu demee nii kon loolu dañ leen koy sant sante bu baax a baax waaw di si jiit ji di si jiital seen kilifa gi ngeen nekkal ngeen euh, jàllale ñu message boobu incha allah. bërëb bi nag mooy Daaru Salaam. waaw waaw gis nga pot de fleurs yëpp ñu ñu ñu ñoo koy defar. Ah, man waaw pot de fleurs yi man nii maa koy defar. Ah, yëpp ñoo koy aménager nii daal di ci taxale. waaw ñu ngi leen bu wér-wér nag. waaw santaat nañ bu wér-wér. te wo waroon ngeen fay fekk mbokk taalibe parce que doon na am doon naa am sax mu fekkee woon li ni mel nii nii nii. non dañuy ñëwaat incha allah def leen loolu